texe ak jaam bi juróomi baaraas moo ci dox keroog bi laaye ji wàccee yonentu bi wax ko ba wane ne diggante nit ki ak aljana juróomi baaraas baaraas bu njëkk bi mooy dee ak wextanam wa ñaareelu baaraas bi mooy bàmmeel ak wéetaay wa ñetteel bi mooy nakiir ak munkir ñaari malaaka yi lay fekk ci sa biir bàmmeel kii tudd kenn xamul ni ma tudd kii tudd man bëgguma kenn xam ni ma tudd ñetteel bi nag mooy siraat waaye njëkk siraat nag mooy baskil ba ñi peesee la sa jëf yu baax yeeg yu bon yi sa yu baax yi nag bu ëppee baskil ba day féetee kaw fii ci àdduna booy peesee li gën poids bi fi mu gën a diisee day daanu àllaaxira nag fi mu gën a diisee mooy féetee kaw su ko defee nag kon juróom yi moo dox suñu diggante fii ak aljana ba ko yonent bi waxee aboubacar aboubacar jooy xam na ñett yi yëpp benn neexut ci dee métti na ak wextanam wa bàmmeel raglu na ak wéetaayam ba te am nakir ak munkir ak seen melokaan yi ñu lay dikkalee ñàng na taxaw ci kanam yàlla ñi lay peeseel sa jëf yi war laa audité loola garaaw na war a jéggi siraat mu nekk benn pont boo xam ne dafa ñaw ba mel ni lanset lëndëm ba mel ni guddeeg oxset raglu ba mel ni jaani ñàngoor ju ñu gaañ te deewul nga war koo baare nga war koo jéggi kem sa jëf yi loola ku ko xelaatul amuloo xel yii nag bi ñu ko waxee Aboubacar xelaat ko bay jooy Ah, léegi nag Jibril ne ko xanaa yéen bi yéen ay yéen arab yéen wax ne li kulli daa in dawa eh, jàngoro ju ne am na lu ko saafara yàlla def na leen juróomi baaraas bara aljana waaye indi na leen juróom yu ko saafara bala ngeen egg aljana juróom ya mooy juróomi julli yi juróomi julli yi mu ne ko képp ku yàlla dimbale ngay luy julli di ko defee ci mbooloo ànd ak laab dee dana yomb ci yow ni sa juddu umpee ci yow kenn mënta nettali ak juddoom da nga koy nettali rek ak xoolal ni mu dansé ni mu méttee te yow yëgoo ca dara boo fonkee julli ci mbooloo sa dee dana yombee noona kon loolu jar naa bàyyi xel kon julleeg fajar laa bëgg a wax moo gën a jafe ndax moom laa yonent leen wax ne ñaari julli yi gën a jafe ci julleeg ci naafiq yi mooy julleeg fajar ak julleeg gee ñaar jafe lañ kon ku fonk julleek fajar nga dagg say nelaw ñu ne ba bala ñoo asalaatu xayru ne nawm bu laajee sangu nga sangu bu laajee jàpp nga jàpp dëgmal dem ca jàkka ja dagg googu nga dagg sa nelaw yee tax yàlla buy coppe sa dund bi doo ko yëg day sedd guy waaye mu ne ko tamit képp ku fonk maanaam julli euh, euh, tusubaar mu nekk waxtu xat-xat waxtuy soxla su boobaa yàlla dina la dimbale ci sa bàmmeel mu yaatu nga am fa tamit sécurité doo fa am benn problème ku fonk julleeg tàkkusaan nakiir ak munkir doo ci am ak ñoom problème waaye ku fonk tamit julleeg timis buñ lay peeseel misaan ba ca yowmal qiyaam ca peese ga baskil ba da nga fa am ndam waaye tamit képp ku fonk julleeg gee ca waxtu lëndamaay ga boo jóggi day yomb lool day mel ni xëfa xippi su ko defee kon nag mu ne ko juróom yi la leen yàlla indil pour mu man leen a saafaraal juróom yi nekk seen kanam kon nag ku bëgg a juróom yi ma tudd yomb ci yow dee ak wextanam wa bàmmeel ak wéetaay baak lëndamaay ba nakiir ak munkir ak seen ñàng ga waaye tamit misaan baak peese ba ak diisaay ga ak oyofaay ba jéggi siraat ak raglu ga fonkul jullik tusubaar tàkkusaan timis gexe suba nga koy def ànd ak njàpp defee ko ca mbooloo ma soo amee ngànt nga door a julli yow kenn ku fonk juróom yi juróom yi nekk sa kanam nekk ci sa maanaam yomb la kon nag nañ ci bokk góor góorlu